auzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen ndokkeel te di leen balu àq di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel tey ñu ñëw ak gént yi beneen bunt bu am solo mooy gént gis sa xarit ci gént yaakaar naa bari na ñoo xam ne dañ leen feeñ ci gént nga gis sa benn xarit euh, comme ni nga ko miino li ma njëkkee ci benn mulaaxasa bu ndaw maanaam orientation bu tuuti bu ngeen dee seetlu gént ñaar ya da ngay gént dee dee nga gént gis ñëw wala nga gént nit ku dee wala nga yow sa jëm bopp nga dee te du benn rapport ak des contraire bi maanaam gént nga dee yow dafay tax yirul xaal maanaam jugee fi nga nekk ci tolluwaay dem fu ko gën a kawe avancement léeg-léeg mu firi sax jëkkër ci jigéen nga gént gis néew mu firi naqar wu dëddu gis nga contraire bi am ni mu demee bu fekkee xarit nag ñaari toujours li nga gént loolu mooy li ne woon la la la plupart parce que quatre-vingt pour cent xarit ci gént li muy changé bari euh, yeneen gént yi da ngay gént loo xam ne tey suñ la koy fii da nga lii lan ban rapport la amul moom mais bu dee xarit toujours quatre-vingt pour cent ci gént yi li mu lay wan loolu mooy li nga gis boo ma toppee tuuti danga gént gis sa xarit nga nekk ci jamono xat-xat nekk ci jamono njàqare nekk ci jamono danger nga gént gis sa benn xarit mu ñëw xeet wi la wala nga jekki rek faj atan maanaam automatiquement rek nga gis sa benn xarit ci jamono yi nga nekkee ci njàqare xat-xat ak danger te mu firi sa xarit boobu ko feer sa diggante ak yow la waaye ku am cofeel la te ku série la gis nga bu dee dangaa gént dugg ci jafe-jafe wala ci njàqare mbaa ci xat-xat yoo xam ne sa xarit moo la ci dugal wala moo la ciy poussé toujours contraire li ma la wax dafay fi ne sa xarit boobu noonu nga ko gisee noonu moom tax ma la toujours daanaka li nga gis rek du nekk gént contraire loolu benn li tax may taxaw fii léeg-léeg nit day gént dara ñu wan la nit ci gént par exemple nit ki ñu wan la ko ci benn façon nga dem ci ku lay fii mu wax la wax joo xam day tax nga ragal kooku. ci yeneen mbir yi loolu du ci am ñaari ci lii ci xarit rek lay feeñ la plupart beneen bi da gént sa sa ay xarit yu bari nga gént gis jamono yi nga leen gis fi nga leen gisee dalaa fekk ci jafe-jafe dalaa fekk ci njàqare dalaa fekk ci lu mel noonu nga gis say xarit ñu leen dimbali wala sax nga gis leen day fari say xarit yu sérieux lañ bu fekkee da nga gis kazalika nga nekk ci mbégte nekk ci bànneex muy neex say xarit nga gis leen dafay firi ne ñooñu bu baax xarit yu sérieux la ci euh, bu fekkee nag da nga nekk ci xaal ci makkaan boo xam ne makkaan bu bu raglu la nga nekk ci fu am jafe-jafe nga gis sa xarit boo xam ne moom mi ngi bëgg walla mu nekk ci bànneex par exemple yaa ngi ci jafe-jafe yu bari nga seen sa xarit fale ma ngay fo wala mi ngi def leneen lu safaanoo ak contexte bi nga nekk day firi ne kookee boo ànd ak moom boo amoon noonu la mbir demee moom moo tax buy changer voilà bu jigéen bu amul jëkkër danga gént am koo xam ne góor la nekk sa xarit ci biir gént ah lu dul gént mu nekk sa xarit xale bu jigéen sa xarit bu góor walla xale bu góor sa xarit bu jigéen nga gént gis jamono yi nga koy gis dafa nekk da nga nekk ci jafe-jafe nga gént gis ko mu ñëw dimbali la dimbali la ñaare dañu wan ne foofu na day change dañu wane nag xarit googoo mën naa dem ba soppandiku mbëggeel bi sa diggante ak loolu mooy li ci mu fas si fassirul yëpp ànd d'accord voilà maanaam dana dem ba cofeel kenn ku ko gis dana dem ba kooka nga gis bis dana ñëw cofeel dana dox sa diggante ak loolu mooy li ci ñuy jàngale tafsir ñëpp seen téere yi ñu gis ko ci ñu saxal lool voilà euh, euh, voilà da nga gént jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy nga gént gis say xarit ci benn place ñoom ñëpp ñu wër la euh, nekkul njàqare nekkul dara mu mel ni xew wala lu mel noonu fu bàyyi am dafay firnde yow nitu nit ngi nit nga koo xam ne ku nit ñi bëgg la bu dee jigéen fii ñaar day firi jëkkër maanaam nga gént toog si fen say xarit jigéen yëpp wër la dafay firi jëkkër ji yow bu dee ko am soxna yaakaar naa wax naa ne dafay firnde nit nit ñi bëgg te nit nit ñi ñoo kuy bari ay relation ak jëflante ak ay teraanga ngay doon kon baax na jigéen balaa ñu continuer càngat yi ñu leen doon wan kii càngatu kaaraange la pour cat la liggéey la rab la seytaan lu mën doon ba teg na feebar incha allah boo ko jëfandikoo yàlla mën na la tàqale ak moom koo xam ne da nga bëgg ubbeeku wàllu liggéey nga jàng pare bëgg sa wërsëg yokk wala ngay liggéey bëgg am bayre yu moom doon mën nga jëfandikoo kii jigéen boo xam ne da nekk ci néew sëy yaa waaye njaboot daf la xaw jafe da am jabar ba si biir nga taxaw mën nga jokkoo ñun jigéen ju amul borom kër it kazalika defe naa bëgg am jëkkër wan naa leen téere bi ñu fi doon wane toujours muy duti lim mu ngi disponible toujours incha allah góor ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllum néew kattan wala sa ndox Euh, nooy walla bokk ngay gaaw a yegg wala koo xam ne dama am jafe-jafe dëgg daal ci wàllu ngóora mën ngeen jokkoo ak ñun incha allah euh, tey fi may ñëw ci xarit mooy dangaa gént di jàppante ak sa xarit ngeen xeex wala ngeen di xuloo boo ma siiwuree ca départ ba démarche ba mooy continuer ko léegi ki nga sa xarit boo xam ne jamono yi ngi koy gis ngeen xuloo ngeen am jafe-jafe di am problème wala ngeen xeex jamono yooyu dafa fekk ngeen nekk ci ay problème dafa fekk ngeen réeroo ci dara dafay firi juboo ci seen diggante bu dee nag loolu amul amuleen benn problème nga génti xeex nga wala di xuloo moom day firi ay réeroo ci seen diggante kooku ak euh, euh, yaa ak si yàlla maanaam gént bi contraire lay doon léeg-léeg gént googu dana firi maanaam da gént sa xarit boo xam ne amoo moom benn problème nga gént génte ngeen xeex damay firi nga am doute ci moom ci seen relation ndax mu sérieux la wala du am bi ci des mooy da gént di xeex ak nit koo xam ne xam nga ko waaye kooku du sa xarit nga gént di xeex ak moom dañuy wax ne ñaar te amoo leen benn problème dañuy wax ne leen ala kulli xaalin problème mën naa am ci seen diggante yéen ñaar. bu dee di fekk ngeen am problème nag day firi juboo ci seen diggante kasaalik koo xam ne xam nga ko rek waaye du sa xarit voilà jigéen xale bu jigéen bu amul jëkkër gént di xeex ak nit koo xamul day firi xibaar bu naqari keneen ku dul moom gént di xeex ak koo xamul day firi jafe-jafe ak xat-xat waaw kay kon baaxul gént di xeex wala di xuloo ak koo xamul baaxul bilkul gént di xeex ak sa xarit waaye kooka faatu na sa xarit sangam génn àdduna nga gént di xeex ak moom wala di xuloog moom baaxul day firi ay problème ak yi njàqare ak xat-xat ci yow ko gént ci sa dund néew ba amu ci problème ci yow rek la voilà jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy dangaa gént di xuloo wala di xeex ak sa waa kër maanaam sa say goro wala sa waa kër jëkkër nga gént di histoire ak moom ñetti wax yi ñoo ci am ñaari benn la benn bi dañ ne xadis nafs la xadis nafs mooy loo xam ne dafa maanaam par exemple yow ndaw si yaa ngi ci kër gi waaye yaa waa kër gi da ngay nekk ci ay problème mu teg lay stress teg lay njàqare léeg-léeg muy feeñ ci sa gént loolu mooy xadis nafs dinaa ñëw bis wane lan mooy lan mooy al ruya lan mooy al ahlam lan mooy xadis nafs danaa ci ñëw incha allah vidéo bi spécial pour nit ñi gën koo comprendre incha allah bu fekkee loolu benn wax la bu ñaareelu wax bi mooy dañ ne day firi ne problème dana du xadis nafs dana problème dana am ci kër ga ak sa diggante ñoon ala wax bi mooy ñetteel bi moom laa wax mën a ñaari parce que dañu a ne benn waa kër ga bëgguñu la wala yow rafetaloo rafetaluloo jëmale ci ñoom kon ñetti wax yi mooy yi daje mooy jigéen ci sëy gént di jàppante ak sa waa kër jëkkër benn xadis nafs xadis nafs mooy daa fekk problème ba am wuti ci xalaat ba mu feeñ la ci gént bu dul loolu moom gént gi day nekk ci réalité problème day ami yi seen diggante ñetteel bi mooy dañ ne benn bëgguloo waa kër ga wala bëggul la lii mooy li nga xam ne mooy li ci mu fas wax borom xam-xam lii lañ ci jàngale ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage yi ko am laaj mën ngeen ñu topp ci yoon yi ma wax wa ma zalika an laaj bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu